inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaa'ila limaada am nga yàlla loolu yëpp bu ko defee loolu yëpp bu ko defee dafa am loo xam ne enrichissement mutuel la boo demee ci ay bindu sëñ Touba dinga gis ni lu bëri dina am lu muy jëlee ci Abdul Xaadir Jeylaani ci kunti ci tijaan yi ci keneen ak keneen noon nga koy fekkee feneen ak feneen ak feneen parce que enrichissement la su ñëpp bokkoon nekk benn xeet benn waaso benn diine benn gis-gis benn affaire bi day dem ba dootul saf waaye boo demee ci bii am loo jàng boo demee fële gis beneen boo fa mën a jëlee loolu moo taxoon li am waaye bi loolu yëpp amee nag lam ca teg mooy la ñu boole moo ëpp solo nañu jàpp ci loolu waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu moo ci ëpp solo moo ci ëpp solo loolu solo loolu rek moo ci am solo nangeen ngeen mooy na ngeen jàpp na ngeen am dëgër ci benn buum bi muy buumu islam bi leen boole wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u fa tafarraqa loolu moo ci am solo gis nga lii lii mun nga war lii mun nga war àdduna ba mu daj li ma gëm man mooy amul ku ko gën a dégg Sénégal ak suñuy mag ak ni ñu tëggee réew mi amul ku ko gën a dégg waaye niñ koy dundee dafa su sax Sénégal léegi ndax sëñ Muntaxa bu jëlee cent ñaata million cent million yónnee ko Turquie xoolul ndax ñi fa nekk ay murit lañu wala ay tijaan wala ay xaadar waaye ay jullit lañu yu nekk ci jafe-jafe waaye gëm naa ne bu ñu woon jullit sax ndax ñun xam nañu àq yi ñu amalante suñu biir dina ko def kon nitu politique nitu politique bu xamul réew mi nu mu tëgg te xamul lan mooy cëslaayu diine ci du dund bi ci diggante yi li jëm ci ibaadaat moom suñu diggante ak suñu boroom la waaye ku xamul li jëm ci muamalaat li nga xam ne moom mooy santaane moom mooy jàpp ni moom mooy jàpp ni nit kooku nit ku xamul loolu nit ku xamul lool rek mooy xeeb nitu diine ba jàpp ni mun ngaa ñëw toog ci nitu diine ne ko gis nga waa jële may gis waa jële may gis ku yées la ku bon la mooy liñ doon def sa aleyhi salaam rek daan doon dagaale gaay ci ci buntu dëkk ba neen am na waay bu fa nekk ab saayir la làmmeñ gi neex na bu ngeen demee fàkk leen seen nopp suñu nitu diine yi ñoo ñu jàngal ñun te xam nañ li nga xam ne moom lañu santaane ci kuy ñëw di andi xibaar xam nañ ko de in jaakum faasiqun bi naba'in